musiba Mamba Kumba la askanu Linguère daal di yeewoo ginnaaw benn minicar bu fa daal di jógee woon démb ci ajuma ci guddi daal di def accident bu métti daal ci autoroute Ila Touba bi ci diwaanu Xambal ba juróomi nit daal di cay ñàkk seen bakkan ci sensé ña nag bi ñu leen di rawale ca l'hôpital ba ci la ñu daal di mujjee ñàkk seen bakkan ñu daal di jàllee famille yi nga xamante ni bi rek ñoo ci ñàkk seen i mbokk rawatina famille bi di famille baax ñoom ñi ñàkk ñetti doomu aadama muy loo xamante ni bii rek dañu ne guleet ndax li nga xamante ni mooy oto yi dañuy def accident bu bëri ci li nga xam ne mooy oto autoroute bi nga xamante ni bii rek yaakaaroon nañ ne dina daal di def li nga xam ne yombal dem gi ak dikk gi waaye gis nañ ni daal tali bi moom li muy jël ci ay bakkan bari na lool ba jéggi dayu lool ñu leen di ñaanal fa ñu jëm gënal leen fa ñu jóge marché ba nekk ca diwaanu Mbour tiis ak njàqare la ñuy dund jamono ji ñu toll li ko waral mooy ay malfaiteurs daal ñoo fa daal di dem attaqué li nga xamante ne mooy ay magasin bëggoon a def li nga xam ne mooy ab cambriolage mujjul sotti nag ñu sox seeni bal tiire ko ci ay doomu aadama ba tax lu toll ci ñetti nit daal cay ñàkk seen bakkan ñaar ña daal di am ay blessé yu métti ñu daal di réer mër ca biir nit ña ñu sukkandikoo ci suñu naataange yi di waa TFM ñi nga xam ne ñoo mujjee ñàkk seen i bakkan identifié guñu li nga xamante ne bi rek mooy seen ay dinañ ci dellusiwaat ak yéen ci yeneen i leeral